đi đi nhiều, cái cái cái chơi, quá, wani ke da kan niyo wa kai kai sa dali kai sa dali ni jai kai sa dali wa kama ma ga da ma niyo wa di bul bul ai niyo ba da niyo kai da niyo aiwa to wala da wani mai yan kuma niyo da ne ne ne an ka ma niyo le le yo ka da ma niyo le ne ko damla ne ko damla ne ko damla ginnaaw li am na ba pare quoi. xam nga tey instant bii sama sama nijaay bi gis nañ ko waxtaan ak moom quoi xam nga ñu jël fee paa parce que fee ne ginnaaw yàlla moom la ko sama nijaay bi xam nga. yaay wala yow gisoo loolu sama nijaay yi comme que affaire yi demee nañu nii moom rek ko ci mën a génne. léegi xaaral ma xool ko ba xam. non léegi woo ko xam nga ñu jéem a négocier moom xool ñu def. ñu ngi. ñu ngi. jàppale pour. sama nijaay bee dem doo topp ci ginnaawam. non Ndiaye lii. yaa ngi ci jàpp rek. Ndiaye. ginnaaw ay jàmm. non yow ginnaaw sama papa yow lañ fi am. waaw yow kese lañ fi am jàppale <laughs> ñu. te instant bi situation yi nekk yaa ko ci mën a génne. dëgg na sa wax. yaa suñu kilifa de. eh da ah. man la. d' accord. pourquoi pas bu ma jëlee si kër gi ngeen bu naqatal ma rek. eh tamit danga may déglu kii nag maa ngi ko xelu xale moo ma jàppoon. ñaar kii xale la fa toog seen bàyyi. xam nga man lii du ma la ko def. noonu la fa demee sa jëkkër. man man man naa sa jëkkër xam nga ñaar mu ngi noonu rek. waaw moom lu ma ko lu ko dal ma wax rek ba ba ma. mu ebeel sëriñ boo xam ne wóyu la. mooy ba waay ngir yàlla bu fekkee damay dama koy bàyyi. noppi rek nopp. yaay noppi sama yoon rek noppi rek yow. sëriñ ba mu ngi gisee daanaka wóyu la moytu fekk attention à à à il la. ñàkk xam lay bay de tey émission bi yëpp dañ koy teg cent quatorze ans. yàq na yàq. yàq ba pare. yow da nga teg cinq ans. man man man yàlla si taa man ay police sax dem dama ko mbubu sa ñeme rek man déw ma fii laa toog. liggéey sama liggéey yaa ci mën a jàpp fàttaliku da lay tax a soxor. jàpp est-ce que yaa ngi dégg. jàpp waaw dama liggéey mais fi mu nekk yaa ko mën a jëlee comme li ma la waxoon. yaa ngi ci naan seen jaay kees a bàyyi yaa ngi ci di. yaa ngi ci di waaw moo dëgg jàpp si rek sa bopp waay Joma Joma fii laa toog yaay suñu kilifa est-ce que jamaa moom waa maay kilifa ku nekk dafa ne gudd naa fa ansa ndiyaay yow ndiyaay xanaa nekk doo jullit dama jullit tey moom dama jullit suba rek dem fa nga jëm da ngeen toog fi rek seen kër man ngi dem nañ dem waaye nañ la xamal leen nag am ba tey mënoo maa waar man faale

mu nii de Samba Kara xaaral ma ko fii waaye kii war na cee gaaw jàpp. parce que sama papa mu ne soo baax ku ci jàppale dara du baax. moom sa bàyyi xamul foofu. asalaamaaleykum kilifa gi waaw Samba Kara waaw maa ngi lay doomu Ndiaye doomu Ndiaye moo ma jox sa numéro nii sax pour ma woo la waaw ñun de sànq dañoo toog nii léegi dañoo toog benn chef de quartier bi yoon yooni doom ji si waaw ñu indi ko fii xam nga sama papa sax mi ngi commissariat ba nii. léegi nak mo jox sa numéro kan ni pour ñu wora waaw ségg dafa am benn sëriñ bu mu fi nekkaloon quoi mu fi hébergé ci kër gi légui sëriñ bi dafa triandé xaw ma ay deux cent côté yoy noonu xam nga kooku nag moo koy indil plainte waaw kan fan së sëgër ah wa may ñu ñëw may ñu ngi ñëw d'accord ñu ñi am. non togal naaj bi dafa tàng bàyyi ma ñu Samba kara la fi soli soriwul xaaral rek ma ki ko après dem jël li jënd waaw ka mu. Téel ma téléphone wala ba ba ba maa ma maa ngi ñëw waaw gis nga mbaayam gis nga jàmm bu suñu borom tegee nag day muñ. xam naa. ah sa jëkkër dem na police. waaw dama laa ñaan dama ñëw. tey ma mais xol moom moo bon. xam naa dara lu mu bon bon daal xam naa xam nga cent cent la xam naa lu mu bon bon à peu près dina ko tëj ay cent huit ans. cent huit ans léegi nag soppi temps yi dañoo mën nga si defal ndogu dama si formé sangu dama indil ay format yu yeex te te nag tey tey booy tëdd na nga defal néeg bi def si da damay fanaan si. fan yow ah ah waaw. xanaa waxoon maa njaay nekk ñu benn. ah ma la la man du ma yéen a fàtte. ndax it naa leen a war a naxal mbiru xam fàtte ca rek. yow da xamal laa bëgg waaye da xamal maa ngi sa kaw sonn naa la yow da nga génn kër gi ci nii mbaa nga génn ko si naa. yéen léegi nag ba xamante ne fanaan ay waay sama nijaay ñëw na. tey maa kontaan barke Serigne Bam. man Samba ne sama ginnaaw du ma daal. billaay borom nuyu. ah ah borom 25 ans yi. ana yow Seye. ah yow war ngaa maa la ko yéene. ñoom. ah ma toll daal.